Euh, maa ngi tudd Jeanne dëkk Golf Sud waaw euh, bokk benn mouvement mais euh, dañoo ñëw juste li fi xew tey waaw li fi xew mooy ministre bi am ñoo am na xam dañ di appuyer di leen jox ay matériel ay matériel ay financement waa Prodac waaw ñoom ñoo fi ñëwoon daal pour li nga xamante ne pour waa Géejawaay la daal waaw waaw waaw parce que ñun suba ba tey ñu ngi fi ñun ñu ngi woon seen biir taxaw mais li ñuy wax mooy seen wax lenn la rek dañuy dugg ci mairie bi lii bu mu fi am bu mu fi am bu fi am loolu mooy seen wax suba ba tey te yaakaar naa ne euh, ku ñëw fii nii euh, ku ñëw pour jàppale géejawaay yaakaar naa ne euh, fii li madame le ministre def nee na Fatoumata Tall ministre de la jeunesse ñëw pour jàppale waa géejawaay ñi nga xamante ne mbënd mi da sonal mu yëkkati ay affaires yu bëri di leen ko jox di leen appuyer financièrement ak ay matériel yaakaar naa ne kon Ahmed Aidara bu fekkoon dafa bëgg géejawaay bu fekkoon bëgg géejawaay gi muy woote dëgg la ci moom warul mën a ñëw pour yàq. am na droit ñëw loolu dëgg la mais ak nu mu ñëwee dafa ñëw ak ful ne day déposer courrier mujj gi dañ daf dafa ñëw ne pour déposer courrier mais boo déposer courrier mun nga ñëw yow kase mais mënoo ànd ak plus de. cent personnes yi déposé courrier. waaw mais teewul bi fi ñoo fi nekk yéen hmm? dañuy jàkkaarloo ak ñoom parce que dañoo xam li ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy yàq ñun waa Géejawaay ñun Aliou Sall jàngalul ñun ñu yàq madame le ministre jàngaluñu yàq ñun defar lañ xam kon Ahmed Aïdara yaakaar naa ne li muy woote naan géejawaay géejawaay géejawaay mais géejawaay la dafa naan géejawaay laa bokk mais ñu bokk géejawaay duñ doxalee nii Ahmed Aïdara dafa dafa Ahmed Aïdara dafa war a bàyyi fitna gi muy indi géejawaay parce que dafa ñëw di forcer barrage bi ne day dugg far force ñu ne ko boo bëggee nga ñëw kon ngay déposer courrier yow ñëwal nga dugg mais dafa ñëw fulam ne day dugg far force waaw bu ñëwoon ne day dugg kenn du ko téye parce que doomu Géejawaay la kenn ëppale ko ci mairie bi mais dafa ñëw pour forcer barrage bi ne day dugg force. yow da ngay attaqué te nee nga dama gis man man Géejawaay laa dëkk man dama gis euh, dañoo nekk Géejawaay yaroo Géejawaay màggee géejawaay di gis Aliou Sall li muy def géejawaay ak ministre li ñu def géejawaay ñun Aliou ak ministre bi suñu sens la ñun jeune géejawaay kon Ahmed Aidara ñun yaakaar naa ne wax la ñuy jàngal wax ñun wax la ñu mën a jàngal mais mënuñu jàngal leneen lu dul wax. sànq da ngaa ne euh, maanaam yare maanaam Aliou dafa ñëw fekk géejawaay beneen image ñëw yare leen ci discipline ak ci liggéey loolu tax ma ne Aliou Sall yarewuñu ñii Aliou Sall dafa ñëw soppi melokaanu géejawaay ba koo si gis jeune bo si gis ñun ñi ngi nii fii état gëmuñu dawal séré lañ xam def yeen affaire mais le ko ci gis mi ngi liggéey ci féra bi ñu ngi liggéey ci yeen affaire mais lool Aliou Sall moñ ko def. d'accord gannaaw lool bu lool dalé yéen tey ministre bi mo moo leen fa tax a jóg ñëw parce que leen wara financer ay projet waaw. parce que ñi nga <laughs> euh, ñun bi dañoo laal bu dañuy sonn lool ministre dafa ñoo pour financer ñu ci ak ci wàllum suñu xam ne suñu matériel dafa yàqu ay mat laa yenn bagages yi ñun looloo ñu fi indi waaw te loolu yaakaar naa ne mbégte ay dara wala doon moom bu ko mënul def ki ko koy def na ko bàyyi mu def ko moom moom moom wax la mën ak kii jëf boqul kii jëfe ngi jëf moom wax la mën mais na bàyyi kii jëf-jëf moom buy waxi mu dem waxi ñun Ahmed Aidara daal wax lañ ko soxlaa bu ñu soxlaa pour wax wala suñu doom yi pour ñu leen di jàngal wax kooku moom wax la ko yàlla bindee ak wax lu ñaaw waaw ñu woo ko mu ñëw wax lu ñaaw waaw bu ñu soxlaa lu ñaaw mun nañ ko woo wax mais bu ñu soxlaa liggéey dañuy bàyyi Aliou Sall liggéey ak euh, ministre bi waaw. Ahmed Aidara Guédiawaye jeunes yëpp lu mu leen jàngal mooy wax ju ñaaw ak wax ju ñaxas ak nekk si rajo yi di xas doomu aadama yi mais loolu rafetul loolu nit du ko def doomu aadama du ko def loolu ko ànd conscience tranquille du ko def. nga yaakaar ni tey financement bi ñuy def mën naa faj li nga xam ne mooy mer. ñi mhm. nekk ci mi di dund. waaw eh, même bu fajul dina am lu bëri loo xamante ne eh, dina ko dina ko dindi. mën ngaa mën naa xam financement bi ci nah, ñaata la ak lan ak lan. waaw parce que eh, parce que ministre bi ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan maanaam bu ñu lay jox boo xamul la ca biir maanaam a wax la ca biir yaakaar naa enveloppe bi daal na daal te yaakaar naa na fàtt tur yi waaw. ba mu jaral Ahmed Aidara su ma Ahmed Aidara tey suma ko mën dafa teraanga ndax ndax nit ku sonn ñu lay dimbali mu ñëw pour xañ la sa teraanga kooku bu ñu ko mënoon a daggati sax dañu koy daggati ñoo jaral nañu lu nekk dafa ñu bëgg xañ suñu teraanga